dal Nokia dal tonnerre moo koy dal incha allahu rabbi man maa ko laaj maa koy jël maa koy duma maa koy daan si kàttanu yàlla. walaay di nga xam ne góor nga ko saxal. dinaa la duma daan la. boo xeexee ma duma la boo bëree ma daan la. damaa daan Nokia daan tonnerre te yow laa ciy teg incha allahu rabbi. bii mooy sa dernier dugub. su ma paree si yow continuer sama liste des na ñeneen ak ñeneen. yaa taxaw wax lii waaw bu jour waa na nga taxaw rek dëggal li nga wax li kan la l'arbitre l'arbitre il était le meilleur ce jour am na nu mu doon demee rek làmb ji emporté ko parce que ñaari xale yi dañu naqaree arbitre parce que xel la ñuy demee consigne la ñuy te kenn bëgg si woon sa bopp première mi bi xaw naa xajam waaye moo ànd ceeg dal ànd ceeg dal premier temps bi rek mënoon nañu mënoon nañu ñu def nii premier mi bi mais moo xam ne combat bi daf ko war a sauver pour plusieurs raisons bu njëkk bi mooy le promoteur bi nga xam ne dafay doo a doon structure te dugg ci buntu bu mag ndax combat bi bu ko commencé ci làmb buntu bu mag ko duggee kon ñu ngi bi félicité di wax ne ñun ñi nga xam ne nag ñoo jaboote làmb di ci wax lañ leen gën a gëstu ci làmb ji gën koo booster te gën a xam ne làmb histoire la làmb dañ koy jàng làmb kenn du ko inventé lu fi nekkoon la nga xam ko mbala loo fi gis ñu wax la ñu nettali lu ko mbala loo fekke loolu rek mooy làmb du leneen lu leen day wax lu ko neex làmb histoire la dañ ko war a jàng boo leen xoolee photo yi ba mu jeex takk xam ne ku ne toll woon nga seetaan yëpp te ñii ñëpp seetaan naa leen ba mu jeex ñii yëpp am na ñu tey am na ñoo xam ne boo leen rombee te doo leen xàmmee kon nga xam ne yàlla day dénkaane mayewul loolu nag fair play boobu nag moo tax tey ma ñëw pour wax ñaari xale yi muy Siteu di xale boo xam ne bii tegginam may na ko lu ne ci làmb Papa Sow tegginam may na ko lu ci làmb Papa Sow géewal naa ko ba pat bi muy daan bàcc seeraas Assane Diouf keroog maa nga laaj Ibrahima toog mbakk du du jib Diouf de ak tey musuma gis ñu ne Papa Sow moo yàq làmb ji 2002 ak tey maa koy seetaan seetaan naa ko 2002 12 janvier 2002 ba bëgg dem musuma dégg ñu moo yàq làmb personnalité la ma sa yor ca Fass ba génn Fass. ma jeexale ci Siteu dafa am lu muy wax boobu ba léegi ma def ne réew mi dañu koo déglu Siteu bu daanee. ak lu bànneex lu lu jël neex neex lu wax ci boppam te mbër yi bu ñu daanee <laughs> maa ngi gërëm Ibou Ndiaye maa ngi gërëm président moom jeunesse bi lay wax ñu jàppale leen mais état bi nañu ko nañ ko déglu décoté bi mu bëgg a wax lan la surtout li muy wax ci jeunesse bi lan la ñu dem seeti lan la pour jàppale xale yi moom bu daanee du du bàkku danaan nañu jàppale jeunesse bi barke dem ba ci mujj devant le ministre ma ne waaw may atta ministre bi ma gis mu tontu ba ma ne mais kii doo ko tontu kii nga koy recevoir laaj ko lu xew mu wax la li xew banlieue bi lu fa xew nan lañu war a jàppale xale yi loolu daal maa ngi la ci encouragé xam nga ne da ngay ànd ak say morom yàlla da ko pexe bésu baa neex nga jël ko delloo leen ko te toujours dama naan nañu jàppale jeunesse bi loolu nag na ci état bi bàyyi xel surtout ci communication ñaari xale la ñoo xam ne seen seen communication boo koy déglu dafa am loo ci jàngee ku ci ne toog nag yow ci plateau te it damay échanger ak ñoom dañuy waxtaan Papa Sow Bamba bi waxtaan nañ ci pas côté lamb mais côté organisation bi jot nañ ci waxtaan ay bëgg surtout mi ngi wax man nag fi mu féete ci lamb fi mu mooy bourse ko rek pare nañ ci ñoom Lamine ci ne ak ñoom Maama de consort ñoom Fatma euh, Mbuub euh, Baye Balla kalaas boobu la ñuy ñaanal yàlla dimbali leen ñu gën a puus làmb fi jëm man daal làmb amatuma ci question éditorial laa ci mën a def pour ñu mën cee jàpp mën a dem de l'avant man daal ma ngi leen di gërëm leen sant di nuyu le président Bira Sène ak seen jëm yëpp maa ngi leen di nuyu euh, kon defe naa ne ma bàyyi la ak sa gars yi. ngir yow nag ci question yi. waaw asalaamaaleykum di wax ne jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul maa ngi nuyu di nuyu ñëpp di nuyu jàmm gan gi bu dëkk di nuyu ànduna di nuyu sama sëriñ sëriñ si Mbacke Alxuraan yaa fóodo séeréer ñu waan leew séeréer bi sin nan timma taxatuna ñu joor bu fayako ñu timma fukk rawatina ci ndaam nuyu ñu fi teew ñëpp di di di nuyu journaliste yi di nuyu kilifa yi fa nekk ak suñu ndaw lay tey Mansour di Papa di nuyu staff yi nga xamante ni ñoo toog fii yëpp si jàmbaar di nuyu waa CNG di nuyu Kondo yi Mateur ñëw nuyu ñëpp daal waaw. di ko ñaanal pour mën a amaat doo relation yi mooy ay jeunes yi boo xamante ne bokku Sénégal dëkk bi bokku culture bi ñu dund loolu mooy relation yi say ay nitam xam nañ ma samay nit xam nañ ay loolu laay wax. waaw loolu koy jeex na jeex na rek xam nga àdduna instant bi amoon def am combat di bëri sama grand frère Gris Bordeaux suñu grand la. mais Ama tey ñun dafa war a imposé wu ñëw taxaw ci kanam waaw mooy maanaam gëm-gëmam dafa war a ñëw jàpp Gris Bordeaux daan ko du question ki Ama laa faral wala Gris Bordeaux mais gëm-gëm bi loolu la parce que ñun lamb dafa war a nekk lu bees ah moom lu mu la wax loolu lu nekk la mais ku nekk ci combat lay waxee si moom waaw man damay jéem a am jéem a ñaan yàlla hey Mansour tegalaat ma combat ma bëriwaat ba la fin waaw. muy Papa Sow moom du péché wul si moom rek waaw damaa loolu nee na bàyyi bee ko jaaxal moom loolu moom du péché waaw ah péché wul ah nee na li nga bëgg a bàyyi moo ko jaaxal daa bëgg a ñëwaat ci laa bëgg waaw yaa guy gën a bëgg waaw xam nga loolu mënoo bëri ñëpp làmb da ngay bëri ñii fekk ñii doo bëri ñee ñee bëri ñii moom kenn mënu bëri ñëpp quoi ñi yàlla boole bëri na ñoom bëri naa ñoom doon xool leneen quoi incha allah. ku def vingt ans mooy def na sa plus beau jour yi yomb na quoi mais képp ku bëre rek bu ko gàcce ku bëre bu fen da ngay daan di jël di bëre victoire nga quoi yàlla mooy dogal mais ay caaginu euh, mënatuma ko yooyu su ma ko mënatu moom damay dina kon dinaa bu doon ci conseil conseil dama ko teg rek damay mais ay athlète boobu par force da war a apte à cent pour cent pour mën a def surtout sport de combat dafa bëri quoi loolu lu tax ma gën a rëgg nag loolu bokk na ci bi ñu subali combat bi man sama téléphone xaw naa ko toj Mor woo naa woo naa Papa Gueye ñun Papa Sow dafa blessé nee nañ ci bëree ah, dañ koy nëb bu ñu bëgg a bàyyi suñu ñu mën koy bëree lan moo xewoon et puis dégg naa sax dañuy jël ay piqûres pour pour blessé combat bi lan la am na waaw non blessure bi nag euh, du blessure bu bees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 dañ ci amaat lu bari. Hmm. ndax ndax prix bi ñu dégg dëgg la. waaw ah, mais loolu c'est normal da ngay def ay infiltration infiltration athlète yi bëri a euh, le jour si ba compliqué da ngay jël bi bëri hmm. ba tax na am na ay yoo xamante ne doo ko mën di jël tout le temps tout le temps di piqûre fii def naa nga liy vaut daal bon pour lamb rek bu baax a baax quoi. ok loolu am na solo tontu par par rapport ak marque bi nga xamante ne. waaye affaire marque. waaw waaw man naa marque li ma sol nii ci li sama la yaa ngi gis yére yi ma soloon sama open press yére yi ma soloon loolu marque Darki Daara boo xoolee tubi bi loolu yëpp yére yooyu yëpp maa koy defar maa koy ñëw di si jéem waaw may di seeti li ñu koy tàppe mais fur et à mu gën a dem lépp dina ñëw. Jongoor de damaa ñibbi Jongoor dégg nga ah leer sama xol la waaw mais jaamu gën dañ ma yaakaar ma nekk seen biir ñu jaamu gën hôpital jaamu gën laa juddoo foofu laa yaroo foofu la màggee mais man sama cosaan séeréer la te boo xoolee trois ans passé boo xoolee ni mu mel si banlieue am na ñoo xam ne boo leen waxee ne si kii séeréer la duñ ko gëm yàgg naa dugg si oto ngeen di wax séeréer nga yaakaar dégg ma séeréer waaw mais il est temps ma ñibbi pour wane ne man. dama bokk ci askanu làmb ci famille làmb laa bokk looloo waral ñibbi mais teewul waaw jaamu ngeen liñ bëgg rek laay roote ji waaw dégg nga na. ñu ay fan yooyu yéen am ñu xalaat ay projet yu bëri yoo xamante ne nii dañ ci jéem a dugal suñu loxo ci affaire bi laa moom saagulu da ngay bëri rek quoi doo bëri yemu ci làmb léegi mm. boo bàyyi ba tamit say rakk ni say ginnaaw say xarit say nit ba monde làmb ñëpp ndax tey jii boo demee bàyyi làmb ñëpp say nit lañu képp xam ne mbër nga rek sa nit lay doon ah mais am nga fit nag am nga foo am nga foo dëgg am nga foo féete mais da ngay jël ñëpp def leen sa jamono sa nit def leen say waay quoi xalaat la. le fait que Papa Sow créé jàmbaar jàmbaar wér seen académie bëri benn combat rek bàyyi tamit bu gënee na say rek yëpp ñu ngi mel ni góor a soog mel ni Franc ak yeneen booy boo xool parce que est-ce que da nga naan amatul écrit benn écrit la mu dem la teel a bàyyi bu dem est-ce que du leen découragé non loolu découragé loolu ndax bon euh, bokkuñu ay génération mën ak ñoom ñoom ñu ngi ay quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-treize ay xale lañu ñu doog dugg ci làmb ñoom nag bi ñu ñëw ci man dama war a ngor dama war a ngor war ma jàppal kon tey jii lépp lu mënoon def si ñoom benn su ma dee bàyyi ko daal si ñoom fukk walaay waxal pour am lu ñuy ragal booy mbëru passé lépp rawatina mbëru passé lépp nag bokku jàmbaar ak bokku jàmbaar képp koo xamante ne gis naa daal yow doomu passé la am na yéene dajale maa ngi sa ginnaaw à mille pour